asalaamaaleykum mbokki excellence tv yéen ñi nga xamante ni yéenay safoo suñu ay programme di safoo suñu ay yëf maa ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar tey nag dama dikkaat ci beneen anam waaw ñëw ci côté jigéen ñi nga xamante ni dañuy seexlu di seex seen bagage su borom kër ñu baal ma ci dégg-dégg bu baax a baax comme ni ma ko bëgg a waxee rek comme nga nekk ak sa borom kër ci biir nekk muy soxla ngay seex ay bagage am yaa ma gën a xam ndax loolu lépp pomi da koy laaj day toll foo xamante ni pomi ci boppam moo koy laaj mhm. ndax nit ku nekk nit nga rek te eh, xol eh, ndab la comme ndab yëpp bu feesee day tuuru kon boo nekkee ak sa borom kër ci biir néeg bi mu dem ba sentir loolu nga lànk ni doog ko defal ñu wax ngay dama koo seexlu da ngay toog si jataayu jeeg ji sax dégg ñu koy waxtaane ah man loolu duma ko def loolu dafa salte duma ko def leen dalaa lay xamal say morom dee nga lay rawee lu bari ndax bu fekkee ni sa borom kër bu ko bëggee nga lànk ni doog ko defal góor moom ku ne xam na ni bébé la ki ko nax di ko aayoo nee ne rek moo ko moom bu ko yàlla xiiree ci mu dem takki sa morom ba mu dikk ci kër gi kooka man ko di nga mankaa ba mel ni ñett yu ñaari réer lii moom maa ko wax dëgg du neex kon li ma leen di doole te di leen ko soññee mooy seen borom kër yi li ñu bëgg dee leen ci taxaw nee naa la guddi dafa seer jigéen waru koo yombal ci benn côté boo xasee ba tëj sa bun du di nekk sa borom kër ci biir néeg bi li mu bëgg dee ci dox di ko wax lii laa wax ba leneen ñëw ma wax ko ay ca fii laay jaar kon yëkkati sama jataay tàggatoo nag lay doon budul tàgg dinaa fi teewaat merci beaucoup